ñoo ngi dalal euh, journaliste bi euh, di Abdoulaye Mbow analyste politique euh, ñu lay nuyu Abdoulaye. maa leen di fay lu lu bari. voilà ñu waxtaanee li nga xam ne moom mooy actualité politique ci mim réew ñu dooree ko li nga xam ne Macky moo ngi tibbi euh, ay maire yi nga xam ne bañ leen fale yàggul dañ leen reconduire sax mën naa ne ca opposition bi di leen indi ci Benno Bokk Yaakaar tey ban jàngat ngay def ci mbir moomu. xam nga président Macky Sall moom. Euh, li nga xam ne euh, mi koy mi ngi koy mi ngi koy undu mooy euh, dafa jàngat li nga xam moo di élection yi résultat élection yi nga xam moo di élection locale yi mm-hmm. bu bi rawee na ko lu lu mat cent mille voix te mm-hmm. te loolu defe naa ni lu lu sakkan la lu bari la mm-hmm. ba tax na jëm si élection législative yi moom boobu bu lekk waxul waaye mi ngi déroulé stratégie am stratégie am nag na ko moo di naka lay fexe ba recruter ñi nga xam ne dañoo bokk amaana ne fàllu ñu fal leen feneen def na ko ak Bamba Fall da nga xam ne euh, grande coalition gëm su bopp moo ko fal euh, mu la àndaloon wala euh, ki nga xam ne moo di Jibril Waat àndaloon a coalition wàllu Sénégal. Mm-hmm. donc moom si dynamique boobu la nekk fexe naka lay dynamité li nga xam ne moo di. convergence de voix yi nga xam ne opposition bi bu ñu boole woon dañ koy am waaye nag si seen tasaaroo ku nekk taxaw am nañ ko waaye raw nañu ki nga xam ne moo di coalition benn mbokk yaakaar si li nga xam ne lu am doole la euh, fii nga xam ne moo di Ndakaaru tey ndax jël meeru Médina dëgg la Médina am na solo lool ci électorat Dakar euh, Biscuiterie yi tamit am solo lool ci mbir mi mais tey jël ñaari meer yooyu leen ndax euh, tax na mu natt boppam déedéet mënul foofu mënu fa jaaree ba natt boppam hmm. naan en politique rek li gën mooy nga fexe da ngay teg situation boo xam ne da ngay dafa mel ni da ngay déstabiliser. Hmm. te def naa ni président Macky Sall nag moom lool dafa nekk mbir boo xam ne euh, yëngu na ci lool te mën na ko lool te aay na si lool. Hmm. waaye nag euh, recruter ki nga xam ne moo di maire Medina wala recruter ki nga xam ne moo di maire euh, Biscuiterie taxut ñu ne électorat bi moo ànd ak ak ñoom jëm ci ki nga xam moo di président Macky Sall. Hmm. dëgg la am ñoo xam ne dañuy ànd ak ñoom waaye nag ñooñu dañuy nekk ay militants dañuy nekk ay sympathisants de la de la première heure dañuy nekk ay affidés total euh, totalement euh, si nit ki ba nga xam ne fu mu dem rek ñoom dañ koy dañuy ànd ak moom seetuñu kii la fii la nekk wala fee la nekk waaye nag la ko dëgg dëgg dëgg dëgg te nekk si ginnaawam def naa la ci ëpp si ñoom euh, ay kii lañu ni ñu koy waxatee ay ay ay ay électeurs kese lañu te électeurs yoo xam ne faruñu fenn ñoom nu leen neex la ñuy voté ku neex la ñuy voté te loolu moo si ëpp solo dégg nga maam si si li nga xam ne moo di moo di moo di moo di électorat waaye waaye recrutement moom foo amee rek baax na parce que opposition bi defe naa ni tam bu recruter woon euh, ñoo xam ne dañoo fallu si bennoo daañu ko tudd daañu ko yuuxu daañu ko wax fu ne donc dafa nekk rek euh, moyen de communication bi nga xam ne dina am impact par rapport ak li nga na bi nga xam ne farut fenn. tey mu mel ni Macky Sall euh, na ne am na lu mu def ci diir bu gàtt maanaam élection yi ñu jógee ak yi ñu dëgmal intervalle boobule ba tax na acte yu bëri yi nga xam ne ñu ngi gis ne mu ngi koy euh, posé euh, jëm na ci ku mel ni ku defaruwaat ku toogaat ndax tey mën naa am lu ko jox. waaw xam nga président Macky Sall moom li ñuy tàmm di wax si nasaraan c'est monstre politique la boo xam ne moom buy buy buy buy dox kenn du ko dégg. Mm-hmm. Euh, day fay jékki saay rek ñu ne yegg si na def na résultat waaye na bu ñu gëstoo rek da ngay gis ne am na ay dégâts dégâts si kii nga xam ne moo di ku jéggi le plus souvent mm-hmm. waaye nag. Euh, élection élection la Dakar dafa am ay réalité am euh, wuuteeg yenn gox goxaan yi nga xam ne daanaka am na leneen lu fay xew. Mhm. mais jëm si élection législative yi nag moom def naa ni rattrapage bi du yomb. Mhm. parce que tam cent mille voix ku la ko raw sans compter que ni am na ñeneen ñoo xam ne faruñu woon a yow te ñoom itam dañoo bokk si kujj gi te ñoom tamit dañoo am seen ay voix. Mhm. def naa ni loolu itam war ko mën a tere nelaw euh, ba nga xam ne moom lu muy def rek mooy lijjanti ba nga xam ne dina drastiquement l'écart de voix waaye tam dina fexe ba nga xam gagné wuuteeg li nga xam ne moom la am si élection locale yi yi ñu génn waaye si euh, kaw itam euh, recrutement bi ñuy wax tamit mu nekk euh, recrutement yoo xam ne yu am solo la parce que itam da ngay gis ni ñi dem sax ñu leen di jokkor bi baaraam moo ëpp que ñi xam ne ñu ngi leen di tàccu donc bu si nekk rek am na conséquence bu si nekk am na incidence ak conséquence politique tey dina wëlbati ko am am incidence ak conséquence électorale mais yow ndax gis nga lu soppeeku depuis euh, boobaak léegi ba ñu génnee euh, ci élection yeeg léegi bu ñu génnee si élection yi léegi li fi soppeeku moom daa daanaka bariwut hmm. euh, ku nekk mi ngi taxaw si kawam waaye ku nekk tam mi ngi liggéey mi ngi liggéey liggéey boo xam ne liggéey liggéey suuf la hmm. amaana stratégie dévoilé buñ ko waaye euh, def naa ni li soppeeku dëgg-dëgg diggante élection yi ak léegi mooy euh, Bamba Fall fekki na Macky Sall Djibril Wade Wade feelu ko fekki ko loolu moo fi moo fi bees li fi bees leneen tam mooy opposition bi si regroupé si yeewu teg nañu ñoom seen kuréel tuddee ko réel non ci moom mi yi ci taxawaayam maanaam defaruwaat daal ci ay jëfinam euh, ci euh, politique am et tout. waaw non moom euh, daanaka moom moo période bu nekk ak stratégie bu muy teg. Mhm. ak communication bu muy teg parce que APR moom bindoo noonu. Mhm. APR moom euh, dafa bari ay leader waaye benn constante moo am. constante mhm. bi nag moo moo di président Macky Sall mooy buur mooy bumi euh, donc wuteet nag euh, les organisations yi nga xam ñoo fi njëkk nekkoon si nguur gi. Mhm. lu si mel ni parti démocratique Sénégal wala parti socialiste. Mm-hmm. parce que parti yooyu bu si nekk rek di nga daan duut baaraam ne kii mooy numéro deux numéro trois numéro quatre. parce mm-hmm. que biir APR amu ko munoo xam kan mooy numéro deux xamoo kan mooy numéro dix. Mm-hmm. donc kenn moo fa nekk daal ñu xam ne mooy numéro un mooy numéro un mooy numéro un mooy président Macky Sall. donc mooy xool naka lay tegee. Euh, euh, euh, gàllankoor mooy xool naka lay yuuxo mooy xam naka lay bë bësee naka lay dumawee ay responsable ba nga xam ne effectivement lu mu soxla si ñoom daañu ko jéem a wuti ji pour jox ko waaye nag lu fi soppeeku moom daanaka bariwul xana moom mooy toog di di togg loo xam ne amaana xëy na ñi ngi xaaraat leneen lu bees parce que tam euh, euh, Djibril Wade moom xaaruñu ko woon gannaaw Bamba Fall te pourtant ni fekki na ko xëy na mi ngi liggéey pour ñeneen fekki ko. ñu gis ne parenage bi ñoom ñoo ngay dóor seen dënd euh, ndax tey jii justement ci parrainage googu le mën nañ ci am sondage. non sondage sondage moom si parrainage bi du yomb parce que itam xam nga nit. nit nit da ngay toog sax yow nit ñoo ne la pare maa ngi ñoo nga parrainel ma sama leader bi te ta yow leader am boobu sax amaana gëmoo ko. Mm-hmm. waaye rapport de voisinage dina tax nit parrainel nit boo xam ne voilà par par. waaye mënul nekk sondage parce que itam euh, amal cinquante amal trois cent mille wala trente mille waaye yaa xam soixante mille parrain waaye loolu mënul déterminer intention de vote parce que li ma jàpp ba jàpp mooy euh, parrainage euh, du du du forcément intention intention de vote Eh, parce que nu mu ko waxee rek ñu bari pare nañu pare nañu liste wëlbati ko votel beneen liste waaye li am solo rek mooy lépp ñu def ko dans les règles de la démocratie euh, politique lépp ñu def ko tam dans la dans les règles de la démocratie électorale ba nga xam ne effectivement euh, daañu dugg daañu génn te defe naa ne jafe-jafe ak coow lu bari duñ ko am. ci jokkoo ak Macky yi ndax mën nañ koo boole ci li nga xam ne mooy opération de charme bi Macky euh, yëkkati jamono ji lépp ngir waajal législative yi. waaw mais jokkoo ak Macky dafa nekk communication comme comme yeneen forme de communication yi nga xam ne euh, teg nañ ko fii yoo xam ne dafa amoon incidence économique et sociale lu si mel ni euh, bourse familiale. Mhm. loolu yëpp forme de communication la diggante président ak li nga xam ne mooy askan wi donc bu wëlbati ko na jokkoo ak def naa ne gannaaw distance maanaam. Euh, sori loolu ndaw ndaw réewam mi ngi fexe jege ndaw réewam jege ndaw réewam nag mooy par exemple opération joko ak Macky jokkoo ak euh, jéem a jege ndaw ñi jéem jege jigéen ñi parce que mooy frange yi ëpp solo si si si réew mi mais loolu lépp tamit au delà du contenu et du contenant mënuñu na mënuñu weddi ni am na loo xam ne forte dose de communication la pour am ay dividende yoo xam ne dividende politique lay doon donc jokkoo ak euh, Macky wala boog déggoo ak Macky ak leneen lu mu doon dafay dafay nekk mbir yoo xam ne war nañ ko mun a xoolee si si angle yooyu. opposition bi nga wax ko sànq mu taxawal benn kuréel gu tudd réseau des élus locaux du Sénégal ñow nag nekk ci wetu AMS tey jii ndax gis nga solo réel googule. le politique la ñu nekk te ku si dafay poser ay acte ay parti politique xëy na opposition bi moom xalaat na ni war na mën a tak association am jëm si li nga xam moo di am taxawaay eh, ngir seen ay maire waaye damay jàpp ni ñaari association yoo xam ne association des maires la dina dina jafe parce que itam day andi par parlo day andi xiiroo ngaayoo te maire yi seen biir waruñu xoolante waruñu xoolante seen biir ngir jàpp ni effectivement ñoom ay adversaire la ñu doon par rapport ak liggéey bi nga xam ne askan wi moo leen ko dénk parce que itam intercommunalité dafa am solo si wala woowu tey jii di nga gis ñaari commune wala ñaari dëkk dëkkuwaay yoo xam ne bokk kii opposition la bokk kee pouvoir la bokk est-ce que nationalité euh, tenir compte si li nga xam ne moo di diisaayu compétence transfert yi donc ñooñu duñu war a mën a liggéey euh, si si wàll su boobaa donc may jàpp ni nag euh, war ñoo mën a xool nag effectivement la ñuy la ñuy trouver ay de consensus des des compromis forts pour maire moo xam foo mënti bokk dès l'instant que maire nga rek nga mën a liggéey ak sa beneen moroomu maire ak quel soit son parce que itam dafay am solo euh, pour mën a réduire disparité yi et par par commune ak commune yu nekk yu nekk Dakar wala bu yokk ñu nekk Sénégal ba tax na organisation boobu moom damay jàpp ni mënoon na a na ñàkk donte la ñoom jox nañu explication yi tax ñoom ñu teg ko. opposition bi ndax gisoo ne dañoo nekk ci benn tekkaaral euh, bu weesoo turu Sonko gu ñuy dégg ci mbiru Sonko Adji Sarr euh, ñi ci dégg ba réwatul. waaw mais xam nga opposition bi xëy na euh, mi ngi liggéey liggéey liggéey koo xam ne soxlawul ñu ñoom ñu koy dévoiler. Mhm. ba tax na xëy na dégguñu leen parce que tam opposition bu liggéeylu woon def na ne duñu duñu am duñu yeew rek dégg Boubacar Camara ni teg na ab coalition bu tudd Kamax Tabax Sénégal boo hmm. xam ne euh, regroupé na ay ay ay ay ay ay ay ay dizaine ak euh, de parti politiques de coalition et de personnalités politiques waaye nag euh, Sénégal moom xam nga Adji Sarr Ousmane Sonko la ñu bëgg a te man dama jàpp dama ko jàppee ab fait divers parce que fait divers la donte le jox naa cër lu bari ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko en tant que personnalité politique jox acteur itam ki nga xam ne moo di Adji Sarr en tant citoyen may jàpp ni rek ku accusé citoyen bu accusé nit euh, war nañ ko mën a leeral waaye nag si kaw ñu wax yoon wax yoon tigi yoon kese euh, au no du du peuple sénégalais waaye nag euh, jiital jiital jiital jiital yoon jiital yoon damay jàpp ni dañoo bëgg nax jiital ñu toujours dossier di ñu wax waaye nag ana fukki ndaw ak ñeent yi nga xam ne faatu nañu lan la ñu teg kom kom comme comme comme tànk dem ci kanam ngir mën a leeral li nga xam ne mooy déggu ñaaw guñ leen rek te ñooñu nekkoon ay espoir ci seen famille nekk ay espoir ci seen réew donc <clears throat> Sénégal gi dañoo bëgg gëm loolu ni affaire fait divers Adji parce que tam Sénégal léegi da ngay yeew audio génn ñu ne la audio baatu daw diw la da ngay yeew ñu ñu génne la photo ne photo diw la da ngay yeew ñu génne la mbir yoo xam ne dara du si dëgg ay invention kese kese kese la Sénégal googu la ñu di dund Sénégal goo xam ne nit fu mu toll dox da ngay tiit yaa ngi seet ndax nit nekkul di la yërndu pour foto la mm-hmm. booy wax ak nit yaa ngi seet ndax maak yow maak yow ñu ngi waxtaan maak yow maa ngi seet ndax faat baaba Baba daf ñu dinañu foto dugal ko suba mm-hmm. donc Sénégal googu la ñuy tund may jàpp ne nag Sénégal googu mënut baax Sénégal googu mun ko tabax Sénégal googu mooy Sénégal contre valeur Sénégal googu mooy Sénégal anti valeur Sénégal gi ñu soxla dëgg mooy Sénégal bi nga xam ne ndaw yi dañ siy liggéey damay teg sama entreprise nga teg sa entreprise ñi yore mbir mi ñu dënk leen ko ñu war ñoo mën a jàppale ba suñu entreprise mën a dox secteur média yuy liggéey ku si nekk fa ngay liggéey nga mën a fexe ñu mën a war a mën a fexe ba nga dund dëggantaan avec décence si li nga xam ne mooy sa liggéey ba nga xam ne doo tàllal loxo ba nga xam ne kenn du la guerre defe naa loolu mooy les véritables combats loolu la ñu war mën a liggéey parce que tam Sénégal euh, mënul am émergence ci kaw ay dossier fait divers ci kaw ay paparloo ak ay vidéo euh, nit yi nekk ci réseaux sociaux yi di di xaste di saaga di disloquer ay famille di briser ay carrière si euh, ay loo xam ne defe naa teg bu dara du si dëgg def naa ne ak ah, dëkk goog mënut avancé dëkk fait divers lay doon te dëkk fait divers lay wéyee te développement fait divers moom amul fenn ci àddina ñu lay jaajëfal bu baax a baax Abdoulaye Mbow jërëjëf